Oui, effectivement c'est vrai qu'il y avait ce qu'on appelle un plan de dette croisée entre l'État et la Poste que nous ñu ngi ici. parce que y a un comité interministériel qui nga gérer la restructuration de la Poste comité rencontre régulièrement

dañ koy mettre en valeur boole ko ci recapitalisation bi ak yeneen yoo xamante ne euh, donc état bi moo siy jàpp euh, ba nga xamante ne ñun dinañ mën euh, s'il y a lieu même d'aller vers certains bailleurs pour solliciter ay ay ay financement ainsi de suite mais tout xam ne daal poste bi moom c'est vrai que problème de liquidité c'est c'est c'est réel mm. à la poste mais quand même comme ni nga ko waxee sànq rek yi passé amoon na benn benn plan pour des remboursements aux clients donc c'est en cours ñu ngi siy liggéey bu baax a baax. remboursement boobu sax bëggoon naa ñu wax bu baax ak euh, peut-être euh, ay cas peut-être cas isolé la peut-être euh, fi et tout ça. Hmm. pourtant amoon na bu ñu denc famille def ba am accès ci xaalis mais tamit li nga li ngeen commencé di def muy remboursement ba de combien wala dinañ ko jotee ñi nga les bénéficiaires waaw l'objectif c'est que képp koo xamante ne da nga dencoon poste da nga xaalis à la poste. Mhm. nga bëgg ko récupérer ñu mën la ko jox sans aucune difficulté. excusez-moi mhm. mais nag ñëpp xam nañ ne avec la situation actuelle loolu mënul nekk. Mhm. moo taxoon euh, poste sollicité CDC. CDC euh, tamit euh, dégagé yenn fonds yoo xamante ne poste moo ko CDC. ok léegi mu ngi koy ñu def mais c'est graduel je pense que c'est déjà fait entre notre directeur général ah CDC ben plan donc de reversement plan je donne des exemples. Hein, mhm, par exemple chaque mois CDC débloque un montant par exemple un milliard. Mhm. et le milliard là donc qui mettre exclusivement dans le cadre du remboursement aux clients détenteurs de compte CNA. Mhm. donc ce sera graduel. ba nga après client bu nek doto am problème à la poste leneen li moom mooy li nga wax sànq. Mhm. <clears throat> excusez-moi mooy ñi nga xamante ne euh, peut-être nekkatuñ fii seen i seen i seen i. Mhm. héritier bëgg nañ jël euh, récupérer cela. Mhm. loolu également une procédure. c'est un métier. c'est un métier qui date de comme ni nga plus de 150 ans. <laughs> cela veut dire que tout est écrit tout est voilà il y a un manuel de procédure euh, ce qui fait que képp koo xamante ne. sa mbokk amoon na xaalis poste boo ñëwee si benn bureau de poste bi nga xamante ne fa la tijji woon compte wala foo mënti dem dañu expliquer la procédure nee la président fii ngay jaar li ngay fournir comme papier su ko defee xaalis di si nga jot